maa ngi fa woon di xuus. Ah, foofu laay ñëw est-ce que waruñu woon waxum waxum hmm. jëmmal leen véritablement loolu dafa leen di encourager un. deux y a des priorités ces priorités boo xoolee su fekkoon ña fi nekkoon defoon nañu la ñu war a def kon priorité yooyu du am ba léegi wante nag état continuité la. aujourd'hui trois mois quatre mois ñu dem màggal. est-ce qu'on peut éradiquer le phénomène de comment ça s'appelle encore de. des inondations non. ce n'est pas possible c'est totalement impossible alors dañuy def avec mais aussi sensibiliser population yi continuer coloration politique est-ce que dafa am lu mu yàq walla est-ce que dafa am lu muy defar bu fekkee yàqul dara kenn du leen tere peut-être ay tëgg tama tëgg sabar nangam ndàngam amu fa parce que yooyu lañ daan gis aussi. Mm-hmm. mais nduruwul caravane. ni ñu toppee nii. non caravane bi est-ce que dafay yàq. mais warul am tubaab parce que tubaab yi dañ ko fay tere. su fekkee dafay yàq. même bu dee day defar tamit dañ ko fay tere ah, su fekkee day defar c'est bien lépp luy nduróog politique da ko fay tere aussi. non. Mhm. je veux dire. Mhm. bi sax. biir këram bu fa dee ñëw. Mhm. am na ñoo xam ni dañuy sol mbubu walla ñu ñëw wanewu ni ñëw dañu bokk ci Pastef. moi je l'ai vu loolu yàqul moom li muy bañ mooy muy yàq cest lu nga xam ne day yàq effectivement maintenant. affaire kii bi comment ça s'appelle encore affaire. non mais mais mais. Biram balaa ngaa engagé sa sa question boobu noonu par rapport ak euh, réplique bi nga def ci. Mm. Euh, déplacement bi bi. Biram du lenn lu dul un régime bu nekk en difficulté par rapport ak la xew Touba inondation yeeg la leen di xaar mu dem fa moom la président. pour saafonte ak waa Touba marqué empreintam Touba ci politique la nekk priorité bi mooy ndox ma yow nga ne ñi fi nekkoon bu fekkoon def nañ liñ waroon a def ñi fi nekkoon def nañ li ñu waroon a def su fekkee xamoo ne Touba régime mu Macky Sall moo fa njëkk a gas dugal tiw ci suuf suul assainissement ci régime mu Macky Sall ko Touba njëkk a enregistré loolu xëy na da ko xamul la nga xam ne nii moom lañ fa waroon a def continuité lañ ci laaj c'est-à-dire l'assainissement mbënd mi li ci gouvernement bi passé def mais dix fois plus lañ war a def pour que ñu ñu ñu ñu c'est-à-dire ñu régler ko completement pour dire quoi le régime de Macky en matière d'assainissement def na bu baax a baax a baax Touba seulement nag dafay un long processus bu ñu demee ba ne def nañ fa 47 milliards soo gisee fa daan taa ca jumaa ja te taawatul c'est parce que assainissement am na est-ce que loolu doy na pour Touba yëpp non. Mhm. il faut que ñu continuer programme bi donc ñi fi nekkoon def nañ li ñu war a def day un long processus ngeen ñëw war koo àggali. est-ce que taxaw ngeen ni ngeen war a taxawee pour problème yi bañ a am ci màggal gi loolu mooy la question. Mhm. et je dis non. mais est-ce que temps aussi may na leen ko parce que nee nañ c'est impossible c'est quasiment impossible. c'est-à-dire li nga euh, mënuñ ko non c'est-à-dire le problème mënuñ ko régler ñoom benn mandat mënul régler problème assainissement c'est-à-dire ñoom ñoo doon politiser l'assainissement. mbënd mi ñoom ñoo ko doon politiser mais naka agsi nañ au pouvoir réalité pouvoir yi xam nañ ko xam nañ ne du problème bu ñu réglé. parce que la parole quand même. jërëjëf tu peux mais jërëjëf li nga wax. li nga li nga wax. temps bi day def non pare non pare na pare na moom moo ma relancé. non non Birame Birame moom moo ma relancé rek ah biram relancé wu da nga. non biram jël parole. non biram moom moo ma moom moo ma moom moo ma relancé. moom laa doon répondre. Mhm. n'est-ce pas pour conclure. il faut qu'il organise les débats. d'accord d'accord léegi. Euh, biram loolu moo tax sawaru ma ñëw na. mais attends mais xam nga xam nga il faut que les choses soient claires. j'ai la parole non ah. déglu ma da nga may déglu. j'ai la parole. et je dois continuer à parler il ne peut pas prendre dix minutes. mais non mais Birame mais Birame a aucun problème. pare woon naa moom mu relancer ah, ma. pare woon naa moom mu non mais dictature bi nga fi bëgg aussi mënul nekk. dictature bi nga bëgg fi mënul nekk. on est en débat. d' accord d' arrêté. weerante bi du fi ah. amee mais moom wutuma ko en fait débat la de temps à autre mën na la dagg wax xalaatam après nga may ko mu eggal. lu gàtt. waay acca. ne me faites pas revenir sur l'histoire des. si yow yaa ci euh, moo tax man ma ma répliquer mon cher. <laughs> jaraaf xam nga ko day day saboté yi. ne me faites pas revenir sur milliards. ñu def ko ci benn mbir ba pare mbir ma saafarawul. non non vraiment boo ci waxee ma wax la ci. loolu rek laa wax. waaw eh, waxal ma 750 milliards yi ma wax la affaire kii. Ah, affaire de la surfacturation. lan ci. 750 milliards. mais génne leen ko teg ko ci table bi c'est de la teg ko ci table bi. il faut arrêter. loolu. dégg man lu ma ci. askan loolu dina ñëw. jox ko ko xam nga ñu ngi audité. donc dina ñëw si loolu jarut gaawantu. non question milliards nga def ko ci mbir. waaw ah. ah. ma mën a expliquer convenablement bu fekkoon ni da nga jël ay tuyaux d'un certain diamètre scientifique lay wax. Mm-hmm. mais laas dootu fa taxaw. na Gana Sakho bi ci nekkoon gis nañ ñu je parle pas de. mon cher kii nekkoon fii moi je parle j'explique. yéen je ne viendrai plus à cette émission je te le dis parce que mënu je parle pas de la. mais dama nekkoon ci gestion non non non je parle. Mhm. de 750 milliards. bu ñu ko defee mën na jur ay tuyaux. d'un certain diamètre yu nga xam ni ndox dootul taxaw. loolu laa wax. et les les les ingénieurs m'écoutent. Mhm. loolu rek laa wax. d'accord maintenant état continuité la je suis d'accord. Mhm. alors affaire Ousmane ko affaire kii bi comment ça s'appelle encore. voile bi. moi je crois que les gens mooy rek dem ci ay débat di yuuxu di wax journaliste ba xamul lu muy wax bu ko defee ngeen nekk rek di tëdd. Je ne veux même pas en parler. C'est clair, net et précis. La Constitution est au-dessus du règlement intérieur de mon école. Mmh. Moi, je suis dans un ensemble. Mmh. su fekkee constitution wax na dara man du may def sama règlement intérieur je dois mettre la constitution en exergue ba pare def règlement intérieur bu nekk en conformité ak li nga xam ni moom moo am loolu rek la man je ne veux pas entrer dans des débats lu nga xam ne c'est puéril et inutile. Mmh. j'ai entendu beaucoup de gens parler. notamment Barthélémy Diaz. nañu bàyyi. nee na Ousmane nañu bàyyi de waaw dégg naa ko nañu bàyyi. Mhm. bu mbir amee rek. maa ngi fàttaliku ku mag bañ dee wax mu ni. je suis un prisonnier catholique catholique. waaye nañu bàyyi catholique yi ñoom kese duñ fi catholique. Mhm. nañu bay jàmm nañu bàyyi bu ñu nekkee ci politique. def tooxi dóora wala dem ba nekk en perte de vitesse rek ni catholique catholique nañu bàyyi loolu. Mhm. yooyu jaxase la ruube la. il faut que ñu bàyyi loolu. ça n'a rien à voir Ousmane Sonko n'a pas parlé de catholique et de musulman. il est parti sur des principes principes yooyu c'est clair net et précis. waxul affaire religion donc foofu bu ñu ko fa jéem a dugal yi du fa dugg. donc cette ce débat là doit être clos le ministre en a parlé. il a fait une déclaration constatant que euh, l'instance supérieure c'est la constitution. moi je peux pas appliquer et puis des surtout des écoles parfois privées. et nous incitons nous les incitons à chaque fois que ñu të ku si li nga xam ni mooy ndeyu charte réew mi looy def rek loi da nga ko war a teg règlement intérieur sama école c'est basé sur moi je suis un enseignant je suis bien placé pour le dire directeur d'école j'ai fait 30 ans de métier donc foofu warul am débat yooyu et puis y a des yu ñuy dugal si lu nga xam ne dañuy dem ba euh, dugal ñu ci lu nga xam ne véritablement mën na jur leneen te loolu mënuñu ko le Sénégal est un pays de et de dialogue ñun avancé nañu trop ci affaire euh, catholique musulman nangam dañ ci avancé nous sommes des frères mm-hmm. et nous continuerons à être des frères sa soxna dafay nekk catholique sa jëkkër day nekk catholique ngeen ànd nekk benn mm-hmm. loolu kenn munu ko sappe mm-hmm. ku koy jéem da nax sa bopp sa kër ngay sappe mais pas euh, la société extrêmement important fa laa yem Ibrahima ndax nga gisee Solu euh, du ñàkk fan yi la passé wax nga ci mais tournée bi mu jël xaw na jaaxal Sénégalais yu bari parce que gis nañ ba Barthélémy Dias d'ailleurs euh, mu ciy wax ba jàpp ne président Ousmane Sonko établissement yi nga xamante ni moom catholique yi sax la wax ñoom lay ñoom lay waxal en fait wax ji jaruñu koy raay moom noonu la ko gisee. bon maa ngi nuyu. Dabaax euh, mhm, Dabaax Malick. Mhm. une personne que je suis beaucoup à travers. Mhm. ses vidéos à travers les débats yàlla ko yàlla defal barke. maa gis muy xool sama jaaj ay waay lañ de. Mm. <laughs> ñoo bu ñu paree ñooy bokk fi ñuy reere loolu moom dama la koy teel a leeral sama moo tax man nii laay def. Mm-hmm. anta dañoo dem ba buddante ay micro mais ñoom ñaar ñooy pare ànd dem reer yi. <laughs> ku ci nekk nag sa kii la rek. xam nga nañ de la vérité. non xam naa loolu. <laughs> man damaa bokk ak ñoom débat. Mm. ci beneen télé. mais mm. débat bi. Mm. keroog tur ñu dagg dem émission mais bu ñu paree. dañoo dem ci benn restaurant ñu fayee ba ma ba suur. ñoom ñoo ànd defandoo lépp. <laughs> di woon dañuy wante téléphone normal nag. seulement nag par rapport au débat nag. nii la tamit. parce que contradiction la mais. xam naa ne ay nit ñu respectable lañ tamit quoi. tout à fait. parce que man xam naa ne moom mbirum xoj du ku nekk lay toogal débat. kii tamit pare. pareil yow it pareil macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga par rapport ak ce qui se passe. Barthélemy Dias moo yéex a. moo mujjee sax wax.